ñoom ñaar jéggi bu baax a baax yéen ñuy topp ci Leewtoo TV rawatina yéen ñuy topp seen émission bi nga xam te ne nii moom lañ tuddee champion mbër champion maanaam émission boobu lañ jagleel képp ku daan ku jëlu ndam li rek dañ koy jagleel waaye tey damaa ñëw fii Thiaroy seet si beneen daanaan xale bi nga xamante nii moo jël ndam ci nga xamante ne mooy général bu Fass di Coly Faye dama koy daal di nuyu ñu daal di waxtaan tuuti Coly maa ngi lay nuyu. bisimilah bisimilah ina waani yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba defar ma sant yàlla julli sant bi gërëm sama ñaari waajur mm. la ziar lu bari mm. di nuyaa ah ñëpp ñu ma fekk ci kër ga ah, di leen jaajëfal cat ba cat béeg ñëpp waaye laata may ñëw ci combat bi rek dellu si waat sa jaar jaar nga wax ni kan mooy Coly ku lu fay benn ndongo la rek bu nekk fi di tarbiyu sama mhm. jaar jaar man ak fi ma jaar bari na de. carrière làmb. sama en ah, carrière làmb. Mhm. waaw bëri naa mbapat. Mhm. bëri naa mbapat ba bàyyi ba bàyyi mais ñaari defet laa ci am. Hmm? waaw. lu war loolu ginnaaw gi dëgëroon wala da ngaa mënoon bëri. non man bi may bi may bëri mbapat laa gënoon a forke may bëri arène. nga dugg ci làmb ji am sama premier combat. fa laa ko bëree Malem Odar laa ko bëri jour boobu mbaram daan moo bëri grand combat bi maag uldu taaya ma daan ko jógee fa kañ production maa koy nuyu au mu tëggaat sama combat parcelle noonu tonnerre deux ma daan mu daan ko foofu sama tour commencé jóg nag si làmb kon da nga da nga dugg ci làmb teg la mën naa trois ba quatre victoires successives teg naa ay cinq victoires soo am defet loolu mu def ci yow waaw def na si man lu bari parce que may dugg may dugg si làmb ji mhm. ñu bari nañu dama teel a bëre la moo tax samay combat teel a bëre mhm. man 19 combat laa bëre 16 victoire 4 défaite la moo ma daan mhm. yooyu ban moo la ci gën a metti sama combat man ak Ndongo Lo moo ci gën a metti lan moo tax parce que dama ko man di waxee ba daan ma est-ce que loolu ban ba nga xeebee mbër mu daan la mu metti la am nga ci ay jàngat yan jàngat nga ci jëlee. maa ay jàngat ndax bu ma ñëwee mhm. jaar-jaar mën naa ne ku am jaar-jaar di nga am loo neex am loo naqare sax jaar-jaaru làmb sax laay wax. Mhm. lu moo la ci gën a neex. sama jaar-jaaru làmb li ma ci gën a neex. Mhm. bokk na sama combat général. général Fass sa combat bi mujj bi lan moo waral lool. parce que ñëpp dañ ni man. dañ ma dañ ma ñàkkaloon fayda quoi. Mhm. dañ ma xeeboon waaw moo tax ñëpp ni dama koy ñàkk. Mhm. ñoo dëggal sama bopp suñu borom ñoo si ndam. Mhm. bokk na ci li ma gën a neex loolu. combat général dañ koy dëxañ ba ba fin bi yaa ngi comprendre mais fu mu ne nii yaa ngi ci dynamique nga tegle nga 4 victoire ba 5 victoire. nga nekk xale di bëre lan moo la a neex ci làmb instant boobu noonu ba tax nga dugg ci làmb ci. làmb yi li ma ci gënoon neex. man làmb la mu dugal ci làmb dama ñëw jugee man Gambie laa nekkoon nag. Mhm. ku ma xam fii caaree rek ñu bari ñi ma xam bu ñu ma fondool 2012 dama xam. Mhm. te man sama lépp Gambie laa ko defee. moo tax sama réew la. ndeysaan. ndax mbooloo mi foofu yaakaar naa ne sax amu ko fi. Mhm. sama carrière lépp Gambie 2003 laa ko defee ba 2002 ba 2012 laa soog a ñibbi si fii. sama lépp Gambie ko defee. ma ñibbi si fekk sama gars di bëri mbapat. am koo xam ne sama benn sama gars la ñuy léegi. ndeysaan maa ngi ko nuyu au mbëtt. di lu bari. ñoo fekk mu teg fi tàng si koñ bi caaray lu mu fi teg mu jël ko. mu jógee Gàmbi ñëw sama gars yi na ma ba pare am na dem nga bëre mu dem booy dem jënd sër dem wut ay ñaan affaire yooyu. boobu man maa maa ko man laa mooy am coow indi fi coow lu rëy. ñu bëre ma daan ko foofu la sama tur commencé jug ci làmb la. ñu naan qualifié deux qualifié deux. mais bëri naa mbapat ay yoon yoon yoo xam ne maa ngi sama rakk bi ñoo finaalu. sa rakk. Modou Lo sama rakk bi nekk si Boy Niang. mais boo demee ba final nan naka ngeen koy bëri. dañuy bëri paa bi daan maa ngi daan seetaan bu ñuy bëre. seen waaw. leen di combine wala leen di bëre dëggantaan non dañuy bëre dëggantaan. Hmm? moom daawuñ jubóo daawuñ jaaroo taal. bu nga xamee ne làmb am na. Mhm. man ma yor a mafia. Ah. ñi naan ko bul bàyyi ñi naan ma bul bàyyi. ku nekk daa am sa yoonu boobu. waaw voilà noonu la demee woon nag. mais après nee ma nekk ay mag loolu dafa jeex. Mhm. léegi bu ñu fekkee ñu toj a doo xam ku mag doo xam kii mooy mag doo xam kii mooy xale ñu bëri naan dañuy yaakaar sa ñun bokkuñu mhm. ndax ni ñuy fooye di ree mhm. sama bés dañ ci sonn waaw bëri nañ final moom moom ñaari yoon am ñaari maa ko daan ah <laughs> kon yaa toog fii de moom toogu fi ñaari yoon yëpp ñaari maa ko daan mu ngi nii taxaw laaj xoolal caméra bi ñaari bi yaa ko daan ñaari yëpp maa ko daan <laughs> dañuy dem ba bëri bëri mm. ma ñëw ni ko may moom mu këxal xam nga rek ak ma mm. mu yërmande bi may am ci moom moom mooy loolu mm. moom dafa xaw sañ <laughs> may moom bañ après pa moo jóge fële ñëw ne bëri leen ba leen yàq laamu jàmm. Mhm. borom dafa teg xaalisam. ndeysaan après boobu maa nga xaw a ëpp kàttan mais moom moo dàq bëri nag. moom moo dàq bëri fu mu tawoon xam naa mhm. a ëpp kàttan. Mhm. ak day si la ma da ciy génne bu général dañ ko bàyyi. Hmm? yi nga am diggante ba nga duggee ci làmb ba avant a bëre ak général yan combat nga bëre ba xam ne yow mii bëre nga. sama combat fay biram bi ne ko si mànga combat bu bëri naa damaa bëre ba feebaram bi mu sumee ko ñu ma àndaloon ñëpp. Mhm. dañu ma doo bëre. ndax parce que ni mu toll. Mhm. ak gabar bi mu yoroon mën a xeex. Mhm. te dama ko dóor daan ko bi ma jël Youssou Ndour ñu bari dañ ma cee ñu ñëw ma dóor ko muy fay ma remplace ko daan ko jël bëre sama premier grand combat. est-ce que làmb fu mu toll nii tolloon na gudd yoo xam ne metti woon na nga nekk ci jàpp te woo bàyyi est que am nga ay regret ci làmb. man maa dem entraînement ñëw barki alxuraan ku dee ak sa bàmmeel. Mhm. dem entraînement ba ñëw. guddi du ma am lu ma lekk barki alxuraan ma tëdd ba guddi ma xiif. damay mer ba toog guddi damay toog guddi gi di jooy sama nekk papa laa am fanaan. Mhm. sama papa ñu ne ma lan la ma ne damaa xiif. bu jox ma téeméer dama lekk mais heure boobu mhm. laa moom dama see ay coono. dinaa neex dinaa si lu naqari. ndax laa moom moo yàqal sama sama géej. man sama lépp géej la woon. ma cas la heure boobu mu metti woon ba sama genre gi wala genre Mansour nga dañoo nooy bu amee dañuy bàyyi lan moo la gën a motiver ba tax nga jàpp ba mu gën a dëgër. sama gars yi ma àndal ku ñuy wax mengu jàmm fii. Mm-hmm. benn jigéen mu dëkk fii sama benn mag. Mm-hmm. moom moom abonné mm-hmm. bi gën a tax ma gën a sawar dem entraînement man 4 ba léegi su ma amee combat dinaa entraîné ba ñibbi du ma nit. kooku moom gënoon a motiver. moom ma resaloon ndékki resal ma lépp moom day jaay ndékki damay xëy rek yónnee ba tey yi ndékki day ñëw su ma fi nekkee day ñëw su ma fi nekkul day ñëw mm-hmm. waaw sama gars yi tamit fu ma nekk su ma nekk fu ma nekk ñoo nga fa mm-hmm. fu ma nekk ñoo nga fu ma toog ma ñaaga ba kër gi su ma fi ñëw sax kenn du mm-hmm. su ma ñëwee bu gars yi ñëwee maire day àllu seen xanaa kii moo fi indi affaire noonu sama gars yi tam bokk nañ si gën a yokk tax te fii dafa amoon concurrence dafa bëri woon na ay mbër dafa amoon concurrence ay mbër mbapat yu ci woon ñuy jaani ñuy jaani mais loolu yëpp tey maa ko fi dindi maa ñëw boole ñëpp. Mhm. ñu doon benn waaw. sama gars yi ni ma gën a encouragé su ma amee combat ñu jënd ticket yi combat sax bëre mu ko aareen. Mhm. te bis mag rek laa bëre mhm. ci mbëru caaro yooyu laay ñëw nga nekk mbër mën naa ne sax buñ tuddee mbëru caaro duñ tudd benn wala ñaari mbër te borom numéro 2 ba relation nga am ak yeneen mbër man aw kenn xaar ma yàlla ñëpp jàmm laa seq ñoom. ku xewle. soo ma woowee téléphone naa la contact la mhm. jour la am na ànd ak yow mhm. waaw mais nag am na ñoo xam ne fii àdduna moom ñu mën a ànd rek ay ànd mhm. nekkul ñëpp nga mën a defal man aw laa dem amu fi sa éggati amu man fi noonu loolu laa jàpp ndax ñëpp a ma bëgg waaw Coly Faye numéro 2 xam naa ne bu toog di wàcc sa carrière duñu fi jóge waaye dañuy xuus arbitre euh, promoteur bi taxaw suñu sa contrat yàgg nga xam te ne mooy général bu Fass mbas bi ñëw combat préparation bi gudd metti doo ñu expliquer loolu. combat dañ ko préparé ba mu des 14 jours. janvier laa ko doon préparé. c'est-à-dire préparé Papa Sow a bëri le 5 avril. mu war a ma dese 14 jours ci la dese 15 jours. awa ah ñu déggante ñu ñu ñu lal corona am na mbas mi xaw ma. ñu déggante per max per max daan ah moom dégg ñu ne ko dégg naa gars yi dañuy tëj làmb ñu moom xaw wóoru ko. Mm. ndax déggu si dara. léegi ñu toog toog ba ci yàgg gars yi nañu tëj dëkk bi. yëg sa micro bi. léegi ñu tëj dëkk bi ñun nañ nañ génn. Mhm. après seen génn ñoo toog fii dañoo génn tey ñëw ci mhm. ba si yàgg gars yi ñu dañuy tëj saal yi. Mhm. tëj saal bu demee kii daje dajeeg buumu policier yi foofu ñun doon fa entraîné. ñu mujj toog mais toog bi teewul ñu dañuy dem Lac Rose ci diin bi entraîné waaw. Coly Faye ñu gis na nga tukki génn ñëwaat tukki bi combat bee ko waral wala da ngaa demoon lëlu ji wala da ngaa demoon uti xaalis. tukki bi lan la combat bi moom yóbbuwoon moom dëgg fa yàlla fu ma dem rek combat yi fa yóbbu. Mhm. dem naa Mauritanie naa fa un mois. Mhm. entraîné jëlee fa na mhm. ba ñu bisee ndeysaan sama bi teg sa baaraam bëgg nga yàq sama émission bi. as ñu dem ba nga jógee Mauritanie un ma jógee Mauritanie ñëw. doole ji ma jëlee woon su ma ko bëri woon général kon leneen la ñuy wax. après si laa ñëwee ñu jàpp nañ date 4 avril. Mm-hmm. ñu dem ba si biir ñu dégg ñu ne Gaston lañ jot date bi. Mm-hmm. teewul teguñ suñu tànk di entraîné ma jógee fi dem Gambie. Mm-hmm. ànd ak gars yi ñu nekk Gambie nekk fa nekk fa nekk fa ba Korité gi ma ñibbisi. ma ñibbisee tegi ma sama tànk ma continuer di entraîné. di contact fajar gi di contact ngoon yi. dafay dem contact fajar ngoon mu demaat entraînement. waaw noonu daal laa ko jàpp woon. nga ñëw promoteur bi jàppaleen date nga xam ne waajal naa ko ci plan musique waajal naa ko ci plan entraînement waajal naa ko ci plan yëpp daal bàyyi ma dara. bàqu bi nag la nga fecc keroog amul. non li ma fecc ma ko. ku ko créé. na lu ko neex. non Matar moo créé loolu quoi moom lu ma fecc rek moom moo créé. Mhm. ñu gis la jour combat bi nga ñëw indi mbooloo bu doy confiance boobu waa Thiaroye amoon ci yow lan la demoon soññ ko ci nekk ne ko lii wala ñoom ñoo la bëggal seen bopp ñëw noonu. caara ñoom duñ topp nit si neen mhm. kun topp rek xamal na gis nañ si yow dara topp ñu lay topp mhm. na dama leen wan li tax ñu topp ma mais nag defal ma ma mhm. topp man xaw ma ñëpp buñ dee mille six cent yi xaw ma leen ma leen sant leen gërëm di yi gërëm ñëpp gis naa ne ma taxawoo keroog ma jógee saat may dugg ci sama oto mënul daw ba su caara yi ba sama gàlle fii oto mënul daw ndax ay nit Mm-hmm. nga ñëw jour combat bi maa ngi fa woon nga bàqul rëy indi confiance ba ku la gis ne qualifié de làmb ji moo ko moom mm-hmm. nga bëri ngeen bëri lu metti lu yàgg abit bi jox sa adversaire victoire ba réaction nga am non foofu xool sama caméra man xam naa ne général dama ko daan météo mm-hmm. nag ma xam naa ne dama ko daan quoi ndax loolu man ma ko def nit muy rëcc parce que sama ma ne la bombardier soo ko defa noonu day toog loolu ko ma ko def nga toog général amee wul noonu doole ma dafa toog ba pare si saako parce que li mu toog si saako bi moo tax gis ñu gis ñu site bi saako bi la toog ba pare soog ma xëcc bi may jóg mu xëcc ma nga bu may jóg doo doo amati àppi boobu sama ñaari loxo mu ngi ci tàngam bi may jóg si la ma xëcc na ma amatu àpp ma dëpp si demee ay daan day teg sama ko man mais man biir na ni li ma am général Yoro moom bu ko amoon ci du bëri waat ñoom ci biir laa mujj lañ jëm combat bi ngeen di ci xeex conseil la woon wala yow yaa amoon envie xeex ak mbër bi rek lan la woon. non man moom naturel sama làmb xeex la. man moom balaa nit di bëri man balaa nga may daan wala ma lay daan. foo jaar nga xeex ma gaañ wala ma gaaña mm-hmm. waaw. làmb ji ni mu demee ñëpp gis nañ ko ñu jox sa adversaire victoire nga génn def recours la ndam lan nga ma fekk. Mm-hmm. sama rakk mm-hmm. ma gars yi jox nañu recours mu ne ma ku wax mu ne ma gars yi wane ma lay ba envoyé am affaire ne ko ah mool maa ngi jóge entraînement di ñëw. Mhm. loolu daal laa ci am. Mhm. après sama gars yi ma ñëwee man démb boobu la maa ngi dem entraînement ma bëri ba ci lenn mhm. si laa demee entraînement après sama gars si lañ ma woo sa gars yi ñëw nañ fi indi fi moto yi yëngal fii gars yi waa ko ñu yëpp génn. jour mais fekk ma fi nag. ñu génn defee ay yu neex. mais bëggoon naa am fekk ma fi trop nag maa leen nuyu di leen ziar di sant ñëpp ah. fu mu ne nii gën nga ci général yaa am ndam ñëpp xam nañ loolu lan moo nekk sa kanam. yow amateur nga ko mu bëgg a jox. eh xoolal ko lii lan moo nekk sa kanam ñeme ko. yow bu doon dëgg dañ koo seeti mu ne Sa Thiès lim lim lim yow nga ñeme instant bi. ku nekk sa xel problème bi man ñii gars ñi ni bëgg ma tudd leen du leen tudd. oui ma parce que defuñu fi lu ma deful. Eh. man 19 combat la am. bët yennul xam na di bopp attan. la yow bu doon amateur yow bu doon promoteur en tant que promoteur yow rek ko may boole. Euh, Mourou Mané wala Lirou Diane. Mourou Mané. su mbëru Leewtoo waaw na ñëw bu ñëw ñu bëre. gëmoo li nga fay rek ma bi ñëwee ko. Hmm. man la Ndeye. Hmm. boo doon promoteur yow kan nga doon booleel. déedéet ma promoteur. Ah, ma reporter ah du ma promoteur. mais yéen a yéen tëgg. déedéet waaw tëgguma de. mais da ngeen <laughs> boo ma doon booleel ko ma booleel. instant bi kay xaw ma. Ah, yaa ma gën a xam ki nga bëgg foofu mbëri bu ñuy dem bëri ji sax seen xel am na foofu ku mu nekk suñu daane ñoo fa lañ jëm kan nga bëgg fii koo fi tudd nga koy may bëgg am na àggu fa te ñi muy te ñi a ñi may tudd gënuñu ma fay def ma fay def defuñu ko fi. man mm-hmm. huit grand combat la am. Mm-hmm. neuf combat seize victoire quatre défaites kese la am. Mm-hmm. am na la bi. ñu am ay dix victoire jaay la meñ bu rëy. ñu am victoire dëgg ñu def palmarès baax. kenn déggu man samay morom rek laa bëreel bëree mag benn mag. ñi ma daan ñëpp ay combat soog la. kon gars yi nañ ñëw ñu bëree. xanaa mën nga maa kii laa bëgg wala kii mu ne sax wala diw na ñëw ñu bëree. Aliou Seye na ñu bëre boobu moom soxla naa ko trop moom laa gën a soxla. un say deux man. Hmm. bu géej waay. Hmm, te mu dooroon isaap yi mu daan. waaw <laughs> loolu laa bëgg na ñoom fit man moo tax ma bëgg leen Alioune Seye de barki dem la jàpp isaap yi da ko dóor mu daan. Alioune Seye na sa morom maa ngi nii. insee ak kan dafa yi mi nga daan. Mhm. sama grand la. affaire baa ngi soog a leer a fayu. <laughs> te Lac de topp télé bi dëkk yi yi dama xam saraxam bëgg a jël place yàlla mm-hmm. na yam mm-hmm. du dërëm na ñëw ma daan Alioune Seye ñëw si moom daan ko naa Lac de Guiers waaw yaar maa ngi seen revancé xam nga fonde leen jox man jox ma leen kopp fonde de man mm-hmm. yabay yu bari laa yor jën yi yabay <laughs> yu bari laa di lakk di leen jox benn benn ñuy lekk yow loolu nga ne yabay yu bari. slogan Boy Niang kopp fonde bu euh, qualifié numéro 2 lakk jën. loolu man man mi sa bëgg naa. waaw dañuy lekk de. yabay naa la xamal leen de cuune di du jënu baadoo la. Hmm. du jënu baadoo la de. Hmm. ba amul woon yàq baadoo lu ko lekk. déedéet. te yabay laa ko jox si da ciy fot. yabay loo xam ko moo tax ci def. dara kaani limon wala. xorom ñu la na mbaxal mi saf. ay saf saap. Koulibaly dama ko jox mu lekk cheval bi fot ma jàpp ko dóor ko ba mu tëdd. ak kan. ah man Alioune Seye laa ci des champs yi ma dëgg fa. instant bi nag moom nga guuxal instant bi moom laa guuxal Alioune Seye sama grand Malaw Sera tamit bëgg naa may ma chance moom. dégg nga li nga wax ko bu ko ne grand comme bëgg nga ko kañ bu ko ne grand dama koy dama koy tàll loxo di ko ñaan ko am moom forcé ma ko def ma ko dara. Hmm. dama koy ñaan di ko wax mu ñëw may ma chance yu bëre. Hmm. waaw. Hmm. instant bi am nga ndam te ku xam ne mbër bu amee ndam moom day nooyal yaa ngi nooyal wala da ngaa delluwaat ci entraînement yi pour xaar beneen avance dëgg fa yàlla nooyal ma boo bëlee maa ngi ko si teg dama doon daj laa daj ba léegi dama doon contact laay contact dama doon musculation laay musculation ba léegi mm. boobu ba léegi sama gars yi sax tey dañ dañ doon dal sama kaw dama leen noppale ko ji ma leen du ma noppale ko mm. ñu mm-hmm. ni ma jaabale ma am noonu laa leen a jaabale ba ñu am doom mm-hmm. fu ne li am ci arène bi la ba ñëpp di gis dañ koy wax mbër yëpp ay mbër lañ commencement ba fin mm. fu ne nii dañoo gis supporters yi phénomène bi ñu indi violence lañ indi wala di yàq arène nationale te arène bi ñun ñoo ko boo doon envoyé message ban message nga koy envoyé. gis nga arène nationale ñoom ñoo ko bokk. Mhm. bu nga yàqee suñu bopp la nga yàqal. Mhm. dañ ko woy ba mbër gars yi dañ ko teg choc te pourtant la ko a affaire rek violence bi am ci football amul sax si làmb. Mhm. làmb nga mos nga dégg ku ñu si rey. déedéet football ñaata nit lañ ci rey. xoola problème wakaam ak ak Sada Mbour. loolu bu doon làmb dañuy tëj làmb. te loolu doo dégg ci wax. keroog maa ngi seetaan benn débat gars yi di xasar làmb di xasar mbëri mm-hmm. loolu dama metti parce que man mbër laa mm-hmm. gars yi bu bëgg a jël làmb bëgg ko saltel mm-hmm. làmb mooy suñu culture bu ñu doon ay complexe ñun xamuñu football moo fa dee la barki sëñ Bamba dañuy tëj làmb dootul amati doo dégg ku ci wax te pourtant ay doomu jàmm ñoo fa dee te ci football lañ dee ñëw làmb xam ñëpp yow xam nga ña nga mën a gérer ñi ngay àndal ñi nga dëkkal kese nga mën a maîtriser mais mënoo maîtriser ñëpp mhm. ndax ku ne ak li nga indi si làmb yi mhm. ñi jëlee fi jàmbur moo leen fi indi ñi tooñ moo la fi indi ñi histoire moo la fi indi mhm. ni ku ne ak li la tax a jóg waaw man pour man yenn si internet ak ak télé yi média pour man sama gis comme li am Europe war na mën a am fii violence bu amee bu amee si stade bi jarul ñu fay yi dañ jël caméra yi déplacé ko mais da gis fii làmb violence day am ñu dëpp fa caméra yi naan ay waay reprend violence yoo am amul fii. te doo gis ñu wan ko ci télé bi. tubaab yi daa ko xeex. te nit ñi ne ñoo gën a ñoo gën a am discipline de. Mhm. te billahi walaay talaay li ma la wax nii lu leer laa lay wax. loolu mooy vi première violence. Mhm. benn coow am ñu jëmale fa caméra yëpp naan ay waaye xoolal lii xoolal lii. Mhm. loolu moo gën a dàq sponsor yi. man sama gis ci pour man violence bu amee fële caméra dañ ko war a tourné. jëmale ko feneen foo xam ne dara amu fa. a match football yi bu ne moo fi am mais duñ ko wane kon ñun bu ñu xeebal suñu làmb ji. Mhm. suñu culture bu ñu ko xeebal xaw ma kan mais dama ko gëm. man mhm. maa nag nit ku yaax làmb. Mhm. waaw. instant bi porteur de voix nga. conseil booy lancer supporter yi lancer ko mbëri ñëpp mën naa ne axlu làmb yëpp lan la doon doon. axlu làmb li ma man supporter li ma li ma leen li ma leen sensibiliser xaw ma la nga wax xaw ma. noonu la. waaw li ma leen wax. mooy làmb ñu ngi làmb bu mu tax kenn ñaaw. ndax ñun bëri dañuy daje saal dañuy daje fépp mm-hmm. te mm-hmm. bi man boog man sama dër si la yam mm-hmm. bu jeexee rek jeex na xaw ma nag keneen man à part làmb la ama jàmm suñu dajee si ku ma mën di dajee si mbedd général xool mi bëri bëri man ak moom bi ñu dajee esaat ñoo taxaw di waxtaan man moom nice billaay dama waroon dem gàllem seede ko mais dama doon xaar recours bi yàlla mais naa dem ba gàllem seede ko boo dem wooñ ni dañu ànd ak la woon mais la <laughs> billaay jàmbaar la ma dama liggéey man mi doon bëri moo xam naa ne liggéey na ci. Mhm. respecté woon na combat bi trop na. Mhm. dama koy kontaanee bu baax Coly Faye waaye duñ ñëw si si Coly Faye xamu ko xamul mais ku la xam comme man waxtaan ak yow ba génn ci waxtaan bi mhm. te duñ tudd ñaar ñu sori ci yow di fóore ak fàllu biñ génnee àdduna lu mu def ci yow. loolu la ma naqari trop su ma nee naqari ma wu ma dëgg. da fóore jour bi muy def soog man moom ñu ànd non moom woo fekk Abou Niass war a bëre ak mu woo ma ne ma Koulibaly ma ne ko. yëg sa micro bi man ma yow mbër nga. am jaase war na am combat de bëri nga toog sa gars ma ne ko maa ngi ñëw yow sama ngeen mu laa jël ànd ak Cheikh Ndaw ak Khalil. Mm-hmm. daw ba camp ba mu nekk camp ba ñu a ne ma xaar ma maa lay mm-hmm. ne maa lay yóbbu ma ne ko ne ma léegi xaaral ma dem place Ndiaye jël sama kóol ñëw ma ne ko wax demal ñëw mooy Ndiaye sama jaay iPhone. Mm-hmm. ma ne ko léegi ma woo tamit ne ko léegi baa ma dem sangu ji suuf si dañ mu ñëw ñu dem ñu gaal abu toog ma ne sangu ji géej mu ne ma léegi daanaka meew mi gaal bi ñëwee maa leen ne ma koli fóori meew ko lekk nañ ko lekk. Mhm. su xalil moo jënd meew téeméeri cere téeméeri ñu boole ko meew nag bi. Mhm. lekk ko ñun daal ñoo jógee fii dem gaal gaal abu toog di waxtaan yaay abu teg reer bi ñu ne fóori la ñuy xaar ma woo ko ne ko foo gaañ ma damay ñibbi rek saa mu guddi mu ne ma Coly maa ngi ñëw xam nga rek ay waxam moom dafa xawoon sa xorom mm-hmm. maa ngi ñëw bu war ragal xaar ma damay wari si kaab coupé ñu toog di waxtaan même pas cinq minutes mm-hmm. téléphone Seck sonné Seck aloo la def daal xam gaa ni Seck Seck lan la abi moom mu jël téléphone daal wuyu waa tamit ragal naa wax mm-hmm. après Seck si la yuuxu fóode dem na oh. jour mën nga amu jaase barki alxuraan di ngeen def fora ak lamsaar koo ko du ko gëm billaay daw ñun daanaka ñun dañu xamul dañu am lu ñu jël sànni fooraa xamul mu fa demee noonu. man maa ngi yem a gis forêt bu sa mu mu tëdd ma imaginer kii. Mm-hmm. moo ma indi fii affaire damay jëlee kaw quoi. Mm-hmm. ak kooku nit bi mu doonoon sama combat ak Nandi Fall moom yóbbee saat. Mm-hmm. dafa doonoon moteur. moteur la si ñun dañu daan modifier lu bari. lu bari bari bari. boo ko ñaanal fi mu jógee jëm yàlla ko gënal fi mu fi mu jógee. amiin amiin. Fallou tamit sama rakk la. kooku moom a ma laajee si moom damay soog a wax si moom lu bari. kooku sama lépp moom la woon. ba sama galaaj sama njëmb sama ko doon denc. kii magal na ñoom ñoo xam ne bokk na day ak bàyyi. kii moo tax ma xam Fallou. mais dafa nekkoon di ba mhm. sama avay vocal su ma ko laaj nga yaa ngi tane mhm. foo toll si feebar Coly. sant naa yàlla may wax fal da lay naq waa ni ngay waxee moom ci vocal ni ngay waxee moom téléphone mm-hmm. da ngay jàppan tere na dafa da nga war li nga waxoon dafa dëgër mm-hmm. vocal bi mu jee waxtaan mën a moom bi nekk Mauritanie mais jour ma ñëw man nga fàllu maa kii mun ma billaay sonn naa man nga man échange suba laa ñibbisi mm-hmm. mun ma après si leen déggante avant boobu déggante nañ mu sama mag mu sama mag bu nga kaw la mu fay man bu ma ñibbisee après léegi ma ñibbisee ma ñibbisee fii laa jubal si fanaan ba xëy fajar dem gàlleem mm. man ma ne tëll ba gis Fatou mun naa fal te xàmmee moo ko. ndeysaan. xam ma dem Mourtani. Mm. man nga Fall yow la kañ la feebar def nii. Fall doon beneen nit. parce mm. que alxuraan karim man ma dem ba xàmmeetu ma Fallu moo doon sotti sama galaay moo doon dox sama lépp. xam nga kon kooku sonn na. xàmmeetu ma ko quoi Fall mel ni nekk daal beneen nit changé. ma ñëw ma defar ma toog ma jàpp ko defar ko ma dee fàll billaahi wala ta maa ngi mel ko yëkkati xob mm-hmm. ma defar ko wér ko mu toog nii ma toog toog sama xol moo ma toog foofu ne maa ngi ñëw ma ñëw fi sama gaale gi sama ma leen fàllu parce que alxuraan ka dem ko day sa bàmmeel fàllu bi jàmbaar bu yàgg mais boobu maa ngi koy wax di ko ko ma xëy suba dem fa ma maa ngi ma delluwaat fa bu instant moom delloo ba fekk na Fall gaañu na bu yàgg. mais yaayam xamu ko man mii sax xamu ma ko. ñoom mère ana Fall bu ci biir tëdd. ñoom suñu Fall dañu naan du nelaw guddi. ma ñëw mbir mi gis ko mu tëdd mu muuraat ko daal dem. bu ñëw ñu toog fii di waxtaan même pas cinq minutes benn xale bu jigéen daw si ñëw. fekk maa dafa daw ba ak si man daal di freiné ñemewul ak si daal di woo sama rakk bi ni ma Lamine kaay. mu laa xool rek mu ne ko mère bi ne Fall dafa gaañu saa man si laa gëj a xam fan laa ne. si mm. laa ñëw forcé ni gars yi Fall man faa ma ko am laa ñëw si margo bi fekk mu tëdd. Mm. ba ni nga yóbboo Tuubaa man góob ni Fall dee na. mi mm-hmm. ngi koy sang ba ni nga suulee si laay soo gëm ni mm-hmm. naa fa. ba bi ne kañ laa laay bëri samedi bi dem naa fa. si mm-hmm. yaar fa defaraat foofu dem fa Fall man ma wax si moom daal. loolu su ma wax si moom su ma xool day fees dafa nekkoon ni ku sori si man. sama lépp moom la woon nañ ko ñaanal rek yàlla yërëm ko xaare ko aljana yu kawe kawe ak képp ku fa fekk ak ku fa fekk noonu looy tàggatoo yi ko di fay. waaw li may tàggatoo mooy di sant ñëpp di ñaanal Fall fu mu nekk gën ko fi mu jugee di ñaan yàlla suuf woyof si kawam. benn mbébét bu mu mbébétoon pour defal ko yaa rek. man incha allah su ma yàlla suñu borom dimbali bu yàlla suñu borom jëlu sama ndax Fallou jàmbaar woon ci côté yaayam. lu ko waaye man de wax loolu liggéey man sama déggoo téléphone sa Fallou mu ngi ko daan jëndal. sama téléphone enregistré sax man mënuma jàng ni laa raa. mënuma liir mënuma bind. Fallou foo gis ma ne moom ñooy ànd bind sax Fallou sama numéro Mara yëpp moom moo ko yoroon. yëpp ñenn yi woo ma ne sax mhm. dem daal. ku mel kooku doon ku mel jàmbaar yu mel noonu. Mhm. nee mën naa amaat mais du yomb de. waaw ndax maanaam danaa dund lu bari. Mhm. presque bu soo moom ko wutaloon te yëguma ko. Mhm. bi mu gaañoo laa soog période ma benn album ma ne ko album dama album album de. maa ngi génne saa bi ma jox ko kii bi xool ko maa ngi mel ni ma lii presque la. loolu laa lay soog a ki bokkoon am na yaakaar bu amoon ci man dafa teel a yeewu nag mhm. daaw jég la am ba maanaam sama ko mbàkkale si mbale sama ko mbàkkale ci yàlla si ndeysaan talul woon sa jàng billaahi topp man na mhm. mhm. ko de man moom ba xuloo si man a moom deux jours du wax moom mu ne ma yow rek dangaa baax rek mënoo maa tere am mbag mhm. billaahi man nga fàll après bi dem mbag bi mu dem def ni ma maa ngi dem mhm. fekk maa ngi toog si léegi mooy sangoon yi mu dem ñoo gars yi woore ñu jël résultat yi jour combat bi jël résultat de mhm. fekk maa ngi si nekk di sangu sama kenn ñoo ne ma ne ku am naa mbag dama sànni si yow mën a sango billaahi ni alhamdulilah rabbil alamin man nga léegi nag defal formation douane di ko tooñ quoi da nga defal formation douane damay mën a may oto ay moto mm-hmm. entraînement mm-hmm. mën a ma waaye ban douane man dama def douane de mm-hmm. mais man damay dem liggéey nekk ma doxalee formation damay dem liggéey dimbali sama yaay mais moom mu nekkoon taaw yaayam bu góor mais moroom booy bi na dafa teel a sotti quoi mais yàlla baax na maa ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp caaray bu dugg cat ba cat maa ngi sant ñëpp caaray jàmb gañ si kaab lamsaar fas mbaaw petit mbaaw grand mbaaw am sax mbaaw bi ma dëkk may nuyu ñëpp di nuyu sëñ Moussa maire dama fay bu sax mbaaw ma nga sant bu baax di sant sëñ Moussa bu oris ak Issa Laye ma nga sant Issa Laye dama defal benn sargal te bëgg naa ngeen teew si nag mm-hmm. bu ñu tabaskee ba ba si dimanche bi ah. nag waaw invité naa leen ñu ngi invité d'honneur mm-hmm. bëgg naa ngeen teew si xamal nu muy demee incha allah waaw di sant Ndiaga Niang suñu maire ñu mm-hmm. ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw waa Gambie waa Tànja maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa Baxaw waa Casamance Buno Sédhiou Malefara waa Silenkil waa Kafountine maa ngi sant ñëpp waa Bignona waa fële Ndoudou fi àllu nekkoon Cap Skirring maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma ñëpp ñaanal maa ngi sant di mu bindoon naa kàddu Coly Faye numéro 2 la woon di ko jaajëfal bu baax te di bëgg ci moom di ko ñaanal ndam li jikko. Eh, maa ngi sant danaa ñëw si yow sama manager Père Bourkhane Wade sama père la maa ngi koy sant bu baax si Abdou Karim Fall bu baax jeen a may galas mu si Abdou Karim mm. làmb ji jàpp nañ si torop mm. làmb ji lu ma ci musul am laa am dem jàkkaaroo si Abdou Karim toog mu toog tàllal samay loxo bu loolu yëpp ak grâce bàjjen doomam mm-hmm. leeram benn leeram ñu wax bàjjen soxna may galas moo jàpp si loolu lépp ay ñëw nañ bàyyi fa laa kër si Abdou Karim a tëj maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw maa ngi sant ñëpp daal bàyyi ma kenn père Bourkhane Wade mhm. maa ngi koy sant sama père la yenn ma ne yam gargar bët bët ba ma mer mu mer mhm. mais abar day tourné waat mhm. yëpp daal xam ne kii sama fii la moo demee ba tollu fi yàlla ak moom la kenn mosuma yor ku dul moom te ñaan ma yàlla yam ak si man na ngir man daal waaye la gërëm <laughs> bëgg naa ci moom lool lool ah moom ko fay di ko jaajëfal waaye jaajëfal ñi ma fekk ci kër gi yëpp ah di leen nuyu bu baax a baax mention spéciale sama équipe bi ma sama caméra woman bi damay bëgg ci moom moom maane sama chauffeur bi 100 pour cent assurance kenn du yow waaye mañ pro borom shooting yi loo photo bu baaxul loo filmé bu baaxul damay bëgg ci yow bu baax a baax jox leen dig daje ëllëg ak beneen champion bu am ndam incha allah ci Leewtoo TV attention ñaar saakees xeex na ñoom ñaar saakees boo ñaar jàpp ñoom ñaar jéggi na junior wàcc jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf attention saakees ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw saakees boo ñaar daan na